jant bi xàqtaay saag yóor di bax diggu njoloor kenn duma ko nettali ma gàddu saag këll di wër këroo kër ni xaj buy rasaatu yax ci sën bu ràgg bunt bu ma fëgg ween yu dëy liir yuy xar cin yu ni wët wattu yu fot wogaan yu fet ni ma kirtim rañaan dankas ci suuf ana luy lii kër yu yànj te duñu fat wata yu rafet ci réew mu rafle ndekete réew waay tumuranke asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi may seetaan noo ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm euh, Mourtada Diop moo dellu siwaat Euh, jàkkaarloog yéen euh, di waxtaan ak yéen ci euh, yenn ci téere yi nga xam ni moom la jot a taalif bokk na ci bii ma téye muy woy ak cax ci ëttub làmmiñu wolof lan moo tax ma bind ko woy xam ngeen ni lépp lu nit ki di def buñ ko déglu bu baax dañuy gis ni ay daajam la yore ba cosaanu woy ci boppam dan koy war a mën a delloo ca euh, dëbb ba nga xamee ni moom la jigéen yi daan dëbb kàddan ngay dox ci diggante kuur gi ak euh, gënn gi bu ñu demee ba ër foo kàndan nga cay dox mooy génne daajub woy ci làmmiñu wolof ndax xam nga ni bu fekkente ni danga jël gënn gu mag jël euh, euh, kuur gu rëy wala nga jël as toq muy gënn su ndaw euh, ak kuur gu ndaw boo leen dóoree na dale du doon benn bu fekkente ni danga jël ab soq ah def ko di dóor di dëbb nañuy dale du doon benn na koy dóggee du doon benn boo jëlee am pepp nga def ko ci gënn gi di dëbb nami muy dalee du dëbbin yooyu nag coow yooyu mu la jox kandang yooyu mu la jox ci la ñu fente daaji woy wolof defe naa ni euh, nee naa ko ci téere bi ak ay lenn ci ay woy boole ci li nga xamee ni bokkoon na ci lim mag ñi daan euh, daggee am xel bokk na ci dàgg daan daggee am xel lii di léeb dañ ci daan dagge am xel léebu dañ ci daan dagge am xel waaye cax dañ ci daan dagge am xel asalan bu fekkente ni ci tegtal bu fekkente ni dañu ni la euh, euh, légatug soow bu dëpp ca soow ma tuuruwul mooy lan ni ma bind nag téere bii dama lay laaj cax bi bañ la jox benn tegtal benn gindi boo tontoo waaw nguur ju mag ngam bu fekkente ni yoon jox nga foofu maanaam daanu nga foofu maa ni la baat bi tontu li nangami yax la mooy li ngeen tuddee lettre ñenn ñi naan ko araf nangami yax la def ko ay tomb boo ko jàppul ñu demaat ci beneen ma jox la yax bi nga xam moom la ko tàmbalee maanaam araf bi mu tàmbalee ak araf bi muy jeexel bu fekkente nag tontuwoo ko ci yépp yëpp man la àccam tontu li lii la kon noonu laa ko euh, bindee euh, ci euh, cax yu bare bare bari yoo xam ni yi caxu cosaan la ak euh, yu deme noonu ba tax euh, ñuy ñaax nit ñi ci ñu gën a gëstuwaat yooyu cax yi xam ngeen ni euh, lu demee ni yoote wure góor gi kàcc kocc barma ci la daan jàngale ci la daan jàngale ku demee ni Omar Gueye ñu gën ko xam ci turu Ndaamal Gosaas moom ci wax nii nga daan jàngale mi ngi mel ni euh, Matar Seck Mboro mi ngi mel ni kii ñuy wax Njaga ñoo ñëpp yal na yàlla yërëm euh, moom ci ay wax yu reelu la daan jàngale kon euh, cax ak woy ak léebu ak léeb yéenti xeeti njàngalin la yoo xam ni dana jafe ñu tàqatle leen ba tax euh, yooyu yëpp euh, dañ ci war a def ay gëstu gën ko xóotal ngir kat li ci ëpp day lëm ci biiram sunu xelum démb wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.